soxor bi nga xam ne wax nañ ne jóge na Angleterre ñëw ci réewum Sénégal loolee lépp docteur Ousmane Gueye daat na ko yaatal ci lu jëm ci wàllum virus ak ni nga xam ne moom la mel ci réewum Sénégal moom docteur daat nay wax ne mbir mi daat nañu koy contrôler maanaam jekku nañu coronavirus bi waaye nag bu tax askan wi bàyyeeku maanaam tiit bay raj-raji loolee jëru ko li nga xam ne moo ko jara fàttali askan wi na leen woppi coronavirus ma ngi ci réewum Sénégal cas communautaire yi ma ngi gën yokk ñi nga xam ne ñooy faatu ma ngi gën yokk loolee baax na ñu leeral ko askanu Sénégal waaye nag na leer na mbir mi jamono jamono ji maanaam contrôlé nañ ko maanaam jekku nañ ko waaye nag ñi nga xam ne ñooy ndaw yi ñoo war a aar protéger ñi nga xam ne ñooy mag ñi ndax bëri ay ndaw ñoo xam ne wopp ji mën na leen a dal duñu ko yëg ci seen yaram waaye nag na leer na ci seen biiri kër seeni yaay ak seeni maama ak seeni nijaay ak seeni baay maanaam màgg nañ wala amee nañu jàngoro joo xam ne bu ñu leen ko wàlle rek ñooñee mën nañoo faatu wala mën nañoo am ay jafe-jafe yu Diaba Jonge mu daal di koy dëggal nit ñi nga xam ne ñooy kilifa yi bu ñu sukkandikoo ci xalaat yi nga xam ne waa kër docteur ñoo ngi leen koy wax man nañoo nag yokk couvre-feu bi ci Kaolack Saint-Louis ak ci jur Diourbel wala nag ñu gën a taral li nga xam ne mooy mesure yi yéene kaay gi tamit di réew mi quotidien moom docteur Ousmane Gueye mi jiite SNEIPS daan nay wax ci lu soxal wàllum vaccin bi nee na vaccin ci àdduna dafa yàgg ay polémique ay picco ak i mballo waaye nag ñi nga xam ne bëgguñu vaccin bi nañu respecté maanaam choix ñi nga xam ne ñoo bëgg a ñàkko yéene kaay gi di Sud ñu xëy fekk fa ceerno Alassane la nee na Sénégal lay raam sañag ba la jëm te bu fa amee kër du baax Sénégal ma ngi jëm ci ab catastrophe économique yéen a kaay gi dëkk Direct News nee na li nga xam ne moo war a am jamono ji ak coronavirus bi mooy ñu tëj école yi tëj université yi tëj frontières yi ngir nag mën a aar ñi nga xam ne ñooy sunu mag yi yéen a kaay gi de la tur bi nee na bu ñu waxante dëgg Sénégal ay jafe-jafe yu rëy la am ngir nag na li nga xam ne mooy coronavirus bi ndax lu toll si junneeg téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay cas communautaire ne meeku nañ ko ci juróom ñaari fan am na lu toll si juróom fukk ak juróom benn ci ay nit ñoo xam ne faatu nañ ci woppi coronavirus ji ci benn ay bés yéen a kaay gi di réew mi quotidien ngir nag woppi coronavirus mën a dañ ci réewum Sénégal tax na Serigne Mountakha Mbacké Bassirou daal di santaane joxe ndigal fukki fan ak ñaar yoo xam ne dañu koy jàng alxuraan commencé ko tey jii si altine ji yéen a kaay gi de las nee na Thiès ak coronavirus ba na nga xam ne moom la fay jaaba jonge bëri na tamit ñu nekk Thiès ñoo xam ne yëgaluñu seen yaram woppi coronavirus ay église bi ak coronavirus bi daal na ñuy wax ne képp koo xam ne ñoo ngi lay suula ci armeel yi na la fukk ak juróom ci ay nit rekk daal di gunge yéen kaay gi de la sa xëy yóbbuwaat ñu diwaanu Touba nee na ajjuma ji nga xam ne moom la ñu génn ca Touba dafa am koo xam ne dafa faatu ñu ko doon sang waaye nag ñi ko doon sang dañoo gis ne am na ay gaañu-gaañu ay góom ayu yu nàcc-nàcc yu am ci yaram we loolee moo tax ñu daal di alerté woowaa gendarmerie ñu ubbi ci ab enquête xool ana lan moo ko waral yéen a kaay gi xëy bàyyi mbir moomee wax ci jafe-jafe suuf yi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal néewaa na ci réew mi fooy dem te fekk ko fa ay jafe-jafe jëm ci wàllum suuf bi ñu ko xayma toll na si ñetti téeméer ak juróom-ñaar ci ay gox yoo xam ne wàllum jafe-jafe suuf piccoog mbaaloo daan na fay am li am ci yéen kaay gii di réew mi quotidien mooy bu Boubacar Seye mi jiite Horizon sans frontières ay avocat ma ñoo ngi koy sàkkul ab bàyyeb néggandiko Boubacar Seye feebar na ba maara de tali jëlee nañu ko ci kasu bu rëbës yóbbu nañ ko pavillon spécial Dantec ci anam boo xam ne anam bu doy waar la yéen kaay gii di Vox Populi xëy ñu ko xibaar yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy yóbbu ñu diwaanu Tamba nee na am na koo xam ne ab ASP la woon teg nañu ko loxo mu yor arme boo xamante ni arme de guerre la moom nag li ñu koy toppee bokk na si ñaari deru segg yoo xam ne fekk nañu ko ak moom ak ay bëñu ngara yéenekaay gi ne na ci trafic funique boobee ci la waaju doon yëngu yéenekaay gi du l'Observateur Aminata Lô mi nga xam ne am ministre la fi woon tey jii danañu ko daal defeere la ko waral mooy gendarmerie bu Wakaam moo ko tegoon loxo ndax dafa respecté wutoon li nga xam ne mooy couvre-feu bi ba ñu ko jàppee mu yëkkati ay kàddu yu ñàkk worma teg ko ci kaw gendarme yi ak njiitu réew A dafa séquestré ñetti xale yu jigéen yoo xam ne juróom-ñaari at jàpp juróomi at la ñu ama dugal leen ci benn tabax bu yéegul doon bëgg a siim ak ñoom seen maringaañ ñu daal di koy teg loxo yéen a kaay gi di nee na am na benn xale bu jigéen boo xam ne ay atam fukki at ak ñaar kese la mu dëkk Pikine rue du Sa nijaayam moo ko doon tëddee doon ko yekkataana yéen a kaay gi nee na dañu ko doon làq ngir sutura waaye na kookee di xale bu jigéen bi nijaayam làq nañu ko jant bi ba ñu koy laaj la mu waxoon mooy dama doon jàngal xale bu jigéen lu jëm ci wàllum éducation sexuelle xale bu jigéen bi nag nijaay jooje yàgg na koo tëddee ba xale bu jigéen bi dawoon ba mu dawee génn kër ga daal di naa kaani kenn gisutu ko daje naa ko taximaan taximaan boobee tamit daal di koy violé yéen kaay gi di Stades nee na Liverpool bu Sadio Mané ak Chelsea bu Edouard Mendy ñoo ngi woon ci ay jafe-jafe waaye jamono ji noyyi waat nañ ndax kenn ku nekk am na victoire jaraaf bu Dakar daan nay gagné Tëngéej FC Tëngéej FC mi nga xam ne toog na lu yàgg-yàgg amul défaite yéen kaay gi di sunu làmm xëy ci combat Eumeu Sène Lac de Guiers numéro 2 yéen kaay gi nee na ay la yëwan combat bi munta